di taalibe sëñ Abdou Lahad Mbàkke moom sëriñ Moustapha Massamba radiyallahu taala anhu tey soppeeb sëriñ Mbàkke moom maam soxna loo Jóob Taif radiyallahu taala anhuma tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Tuubaa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér tey roy Cheikh Abdoul ci ak dëgg radiyallahu taala anhu mbokk yi noo ngi dellusiwaat te sant yàlla bu baax tey julli ci yonenteem ngeen ci mbindee sallallahu alayhi wa sallam tey ñaanal Cheikh Ahmadou Bamba suñu borom yokk yërmandeem yokkut njëggalam ak njabootam nga fa nekkal ji yépp ak xeetu seydina muhammad sallallahu ci bi ñu yàlla maye nu mën a toogaat ak yéen ci niñ leen ko diggee woon te yàlla maye na ko noonu ba toll ci waxtaan wi mujj ci weeru safar te yàlla may nu nanu ko bëggee woon mu defal na lu kawe jot tàmbale woon ko ci waxtaan wu jëkk wa ci première safar ba agsi ci wu mujj wi tey ñaar fukki waxtaan yi jëkk ya ñu jëme ko ci fàttalante jikko yi ak soññente jikko yi ñu war a ànd ak sëñ ci lu bari ñëwoon it ci li waral màggal gi tolla woon ak fukki waxtaan ak juróom-ñaar waaye ñu dem ba ca ñaar fukkeelu waxtaan yi bañ màggalee ñaari fan après ñu wéel li nga xam ne mooy liggéey bi ñu sumboon ci waxtaane li nga xam ne moo waral màggal gi waaye ni ñu war a màggale ba ci ñaar fukkeel ba ak benn nag ñu tàmbali nag jagleel ko sunu mbokki kuréel gi nga xam ne mooy Hisbullah muy kuréelu waa Tuubaa ci kanam li desoon ci waxtaan wi lépp moom lañ leen ko jagleel ba àgg nag tey ci cëppaandoog waxtaan wi ñuy sant mbooleem koo xam ne yaa ngi doon déglu dinu may noppi la ko dale ca ba ñu tàmbalee ba fii ñu jeexale yàlla war nañu ci lu baree bari ak cofeel gi nga xam ne am ngeen ko ci ñun te lott nañ ci fay leen ko waaye dañ leen di poole ki nga xam ne moom mën naa fay yàlla na leen fay ngeen ci fay jasaakallahu jasaakumullahu xayran waaye du ñu jógit ci di leen gën a soññ rek ngeen di gën a intégré wu ci lii nga xam ne noonu moom la ñuy liggéeyal la Sëriñ Tuubaa muy lu làmmiñ mën a tudd duñ ko tudde sax xam-xam waaye ñu di ci génnee li xam di ci génnee li ñu yéene ngir bokk ko ak yéen ba ngeen ko tàmbalee yàgg na lool numéro bu ngeen am ba gisatu leen waxtaan wi rek yéen a ngi jéem a fexe ba amaat ay contact fexe ba jokkawaat ak ñun xamal nañu gëj nañoo dégg waxtaan wi loolu nag nit ku la yëg dong nga ko mën am na ci fépp nag ci àddina bi bu ñu tuddee tur rek dañuy jiw bu ñu tuddee réew dañuy jiw waaye àddina bépp foofu waaye man di nekk Afrique ak Europe ak États-Unis d'Amérique ak foofu fépp Moyen-Orient bi fenn foofu fépp Sénégal nekk te internet àgg fa te ñiy déglu gis nañ ne nit ñu bari ñu ngi ñuy woo di fësal seen mbégte loolu nag mënuñoo def lu sant ci yàlla ndax ñiy fësal seen te ñoo lopp xam-xam fuuf gën maa baax fuuf gën maa doon ab bi fuuf kon bu ñu la seereelee li nga xam ne ñu ngi la koy seereel rek jàpp naa ne kon ñun ña ngay jéem a tegu ca yoon wa kon loolu it dafa bokk ci liggéey bi sant yàlla googu nag ñu ngi koy sant yàlla ci loolu nga xam ne yéen a ñu ko yo ñi ngi ko yéen ngi ñu ko féete ci wet googu te bëgg sëñ Touba dong nag waral ko ak doonub jullit waxtaan wi it kilifa yi nga xam ne ñu ngi koy dégg te xëy na duñ prononcé wu waxtu jot waaye jamono buñ la tegee bët rek dañu lay xàmmee bu baax a baax a baax sagal la ci biir mbooloo mi ba ñëpp siggi di la xool loolu cër mënu ko gën a rëy ndax loolu daraja ju leen suñ borom defal la. am na kook bu la gisee ci mbooloo tudd la képp maanaam sa fajuk aajo day daal di taxaw ndax nit ñi dañuy amaat cofeel ci yow noonu la ko yàlla bindee ci ñoom te ñooñoo kat ñoom it bari na ñu nekk ci seeni roq te ñu ngi ñuy dégg tey bari na ñooñ ku ñu ci musta gisit boo dajeek ñoom ci mbooloo boo ko nuyoo bu ñu la ko présenté rek mu ne yee eh, kii kay danaa ko déglu daan lay encouragé nit nit day dégg baat bi dong nga woo ko tel ngay woote jot ak moom téléphone mu ne la yow de daa mel na yow yaay waxtaan ci YouTube bi wala yaay waxtaan ci WhatsApp bi wala yaay waxtaan ci application yi nga xam ne mooy plateforme yi nekk ci biir internet am na ko kàddu gi dong da koy dégg xam ko am ko da ngay dajee ci mbooloo dong mu dégg la ngay wax mu dikk na la yow mii de daa mel na xàmmee na la xam nga ñooñu am nañ yitte ci yow nit nag dañ ne nit ay garabam waaye nit nit may garabam ñi bokk lu ñuy wut nag ñaare ñooy xamante ñi bokk lu ñuy wutit ñooy ñooy mën a ànd am na ci ñu boo doon wax fii ba déwén yëguñu na yaa ngi dund waaye loola dañ koy sant yàlla ki ñu bëgg duñ dañ ci sant yàlla kii ñu won gannaaw it dañ ciy sant yàlla ndax yàlla bindee noonu àddina kenn taxaw di wax ñëpp ne ko gonga moom yàlla sax muy ko boppam waxuma laak di ko may mbindeef ndax yàlla bu ko mayoon boppam islaam ji mu rëdd na ina diina hindi laa yàlla islaamu ñëpp nangu cee topp yoonu bi sallallahu alayhi wa sallam ay dañoo lànk te buntu xéewal yépp leen ko ubbil di leen ko jox ci baatub yaa rahmaanu yaa rahim sëñ Tuubaa tënkee rabbi bi maa yaslahu kon loolu àddina moo ko bindoo waaye ñi ngi maase daal di ñaanal ñëpp yërmande yàlla moom ku ne xaj nga ci yërmande yàlla yaatu nag bu ko kenn jombale kenn yaa maalikal mulki yaa man jalla xan xawadin xam nga wow bàkk moom aku kañ moom nit kuñ ko waxoon nga jël àddina ak li ci biram joxe ko waaye kii am te du jeexal moom te sañ a joxe biñ ko ko bàkkee moom dana ko ñaanal loo bëgg ma defal la ko mu daal dina irham jamihal wara yaa haadiyan radaa loolu nag yaakaar naa ne ak baax fi la yem waaye ak tabe yëpp mooy fi suñu borom tàmbalee ba fi suñu borom yem suñu borom sax amatub yemukaay moom kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak noonu din topp di sant bu baax ak kilifa yi waaye nag di sant bu baax ak a ñaanal nag kii nga xam ne tey moo fi nekk tey ci buntu ko sëñ Touba sëñ muntaxaa noonu gis nañ ne xilaafam gi yokk nañ ci bu baax xéewal gu nekk fekk nañu fi ñu nekk wallahi nasiim dañ koy wax la te yàlla tax ndax waa ma bi nihmat rabbika fahaddith xéewal gu nu yëg ci suñu xol nga xam ne duñ ko nettali ci suñu làmmiñ moom xilaaf sëñ Mountakha gi dund nañ ko ci tey la ko waral mooy rek jéem a sax ci jub ci di wax dëgg ak di ko jëf xilaafam sëñ Muntaxa gii de noonu yëg nañ ci loo xam ne sii de mën nañoo taxaw wax ko ñëpp dégg ko te yaakaar naa dañu ci ñeewaaye ñun duñ ci ñee kenn te sëñ Muntaxa de bi mu toggee xalifa ak léegi sama loxo bi teguwul ci loxo loolu nag li muy teg ki day wane ne maanaam nit ki wala jëmm ji wala nitu yàlla ki du cee gi balaa sa aajo fajo rek dala teg bët nga teg ko bët ci benn jataay wala sa loxo bi tegu sa loxoom ci ab nuyoo wala mu wax nga dégg ci jotaay déedéet ñi ko jàppee noonu wumpale nañ suñu borom ndax yërmaande yàlla yaatu na nit mën naa toog fa mu nekk def la muy def waaye yàlla mi nga xam ne nag moo yore kàttan googu moom dara tëw ko kon ñoom li ñuy jariñu nit mooy ki sax ci jub te ñu xilif la nag te sañ laa digal sañ laa tere kon boo saxee ci jub rek ah sa aajo day faju loolu nag moo tax waa kuréel Touba ca kanam gii suñu borom may leen sens boobu ndax ci sëti sëñ Touba lañ juddoo sëti sëñ Touba ko waaye sët bii ñu dajal nag mooy troisième xalif ci sët yi nga xam ne dara ñuru ko ludul lu baax dara ñuru ko ludul sëñ Touba am yéene nag nit ñi bokk bokk euh, sëñ Touba mii di tënku ci ay ndigalam am yéene yit njariñal sëñ Touba li tasaaroo ci ñëpp. ni yàlla a tabee ba jël ab taw di ko sotti ci ndox noonu la sëñ Muntaxa mii amee yërmaande joxan si jombalewu ko kenn li mu am ci sëñ Tuubaa bu sañoon ñëpp danañ ko am ñëpp nag laa la kenn ab safaan nit nag balaa ngaa mën a xam sa baax dangay mel melakaan woo xam ne dangay ngay mën a ànd ak ñëpp ànd ak ku jub ànd ak ku dëng waaye nga xam ne ki dëng yàlla la neex kii jubit suñu borom suñu borom la sopp ñaar yëpp nga jël dogalub yàlla jox xam ne ki dëng mën naa dem ba wàññi ko waaye ki jubit mën na la noppal lool kon noonu la ñuy àndee ak kilifa kilifa it noonu lay jiitee mbooloo waaye kilifa bu fekkee day boddiwaate kilifa bu fekkente ne day am melokaan woo xam ne ku ko melul rek mu dagg la wacc kooka mëtagul Ah, kilifa ga nga xam ne day roy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi moom mooy kilifa kilifa yëpp kilifa ñu baax ñëpp mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam diine ji mi ngi ko daan taxawal muñ gudul góog jinne def na ko muñ naa muñ a muñ muñ muñ muñ ba tax lislaam ak si fiimaag ndax jekku na ba tàyyi jéggale te loolu la ko sëñ Tuubaa roy ba tax li mu am ci yoon yi mu am ko waaye bu fekkoonte ne jéggalewul ku ko tooñ mu dal ci sa kaw wala mu jëflanteeg moom ci doole ji jiitu nga xam ne da ngay gis ne kii labal na kii kii ah, suuxal na kee wala kee def na kee nangam yooyu dégg ko ci moom des yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ak tabelaakug laabir ak yeneen nit ci jàmm loolee nag moo nekk ci sëñ Muntaxa mii ñu koy wax nag yàlla na ko fi yàlla yàggalte te wéral ko ak mboolem ku ko yéene Touba ci kanam gii nga xam ne nag dama ne am nañ sens ci xilaafam gii nga xam ne dañoo daje ku bëgg sëñ Touba te gëm ko lool te yéen nit ñi jàmm ñëw nag ñoom di seenu bëgg sëñ tubaa ci bëggug sëñ tubaa seenu bëgg sëñ tubaa ci bëggu sëñ tubaa ñoom lañ àndeek sëñ muntaxaa ndax seenu bëgg sëñ tubaa ci bëggug sëñ tubaa mooy ñu fekk li sëñ tubaa bëgg ñu bëgg sëñ tubaa ñoom di ko ko liggéeyal te sax ci dàq yàlla dimbali leen nag ba lépp lu ñu leen teg ci yoonu murit wii te sas ko yoon wépp seenu sas moom mooy njëkk taxaw àgg loolu université bee yaakaar naa ne leeral na ko kon Touba ca kanam gàcce ngalaama fii ngeen ko teg daal na ngeen xam ne yokk leen rek seen karawaas làbbule seenu fas sa xam ne nit ku fi mas a toll rek rëppatal nga sax fas te téewula daanu yéen a fi ak ak si tey làbbali seen karawaas te yéen a ngi ci kanam nii ngeen ko jàppoo bu leen déglu ma sàmba bu leen déglu ma demba ndax ñoo ñu taxul ngeen di jëf ñi tax ngeen di jëf daal mooy ñi nga xam ne mooy la siina amanu wa amilu saalihaati waaye la ca tegu rek mooy tuubaa laxumu wa husnul te Touba jooju sëñ Touba wax na ci lu rëy Touba li xabdin muridin saadixin lahumoo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyat waaye nag Touba googu da ko tudd ci lu bare bare bare bare bare Touba googu nag na ngeen xam ne lépp lum ci yéene woon da ngeen mottalil ko yéenam jooju bu ngeen tëddee moom xëcc leen seen ngeganaay te nelaw te xam ne moom li ngeen bëgg am ngeen ko ba noppi ndax waxi sëñ Touba du deltu gannaaw mukk waxi sëñ Touba it du wax muy dañ du maye di nangu te ki koy maye yit du dem bu mu yàgg mu daj kelam waxoon ndax da ko jëflante koo xam si du bindeef kon nag tey fii ñu tëjee mooy xam nga dafa am ponk boo xam ne dafa bokk ci lislaam ndax boo nee shahaadatu an laa ilaha illallah iqaami salaat nga ciy teg itaa i zakat sawmu ramadan ajil baytillahi alharam itaa i zakat boobu nag alal sëriñ Tuuba moo war jiitu ci itaa i waaye na ngeen ko ko mën a organiser ci suufam si gannaaw ba nga xamee ne projet yi taxaw na yéen a ngi liggéey bu baax di liggéeylu nit ñi di dunde seeni ngor di sàmm seen ngor muy lu am importance alal jooju nag fa muy dajee bañ naan milliards yi sëriñ Tuuba yi nga xam ne lu ñuy liggéey ci dëkk bi foofu la ñuy dajee am na benn palaat plateforme boo xam ne si man ngeen ko copier ci waa mag comme ni ñuy génnee azzakat yi nga xam ne waxoon naa leen na kenn duutu toog ci sa kër tey tënku ci tuubaa di génnee asaka di ko jox ku la neex moo xam ngay génnee ab junni nga xam ngay génnee ay millions wala ngay génne milliards dañuy def organisation boobu daal képp ku koy génneti da ngay dem ci ñoom ba nga xam ne fa lañu koy dajalee di ko fa di bind tur yi di ko enregistré yow boo dikkee foofa da ngay joxe ne lii kat azakaat la man maa ko joxe su ko defee ñoom ñu jël ko garde alali sëñ Tuubaa jiñ téyeet ñu xayma ko ne nangami milliard la xam ne nangam ci asaka ci war a génn ñu génnee ko boole ko asaka ñooñee bu ko ñëpp maasee def ba alal jooju génn nekk ay milliards danañ mën a li nga xam ne mooy kër yi nga xam ne seeni borom dañoo tuxu si te amuñu doole te sàkkaat boo koy jox da koy jox koo xam ne li nga koy jox na ko amal njëriñ waaye doo ko jox koo xam ne si da nga ko war a dimbali jox ko koo xam ne si war nga koo mën a defal loo xam ne si du bokk ak asakaat nga xam ne da koy jox asaka ba pare mel ne daa remplacer place ba nga ko waroon a def asakaat du ko def kon bu bu ngeen recensé kër yooyu kenn ku ne lam ci war a am mu am ko ci danañ ci mën a tabax ba am lu leen yiir danañ ci mën a solu danañ ci mën a am ab dund waaye danañ ci mën a am des woo xam ne si ñoom it bu ëllëgee asaka jooje deesatu leen ko jox waaye dañuy bokk ci ña koy joxe bu boobaa dal na mën a dem ba ak zakat boobu bu ñu ko génnee te kenn duutu ko yaayoo ci dëkk bi mën nga koo téye lu yàgg te doo gis koo ko jox waaye comme jullit yi nag duñ jeex te dafa yaatu ci réew mi te al muslimu aqul muslimit bu boobaa it ak zakat boobu mën nay génn dëkk bi di dem ci ñoo xam ne ñoom it ñoo ko moom ñu jox leen ko xëy na bu fa yàggee li dal waa Touba mën na leen dal di mën naa dem ba ñoom Ah, dañuy dem ba asaka duutu leen war waaye dañuy dem ba da dañu am lu ñuy léggéey kon loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ne jafe-jafe duutu fi am su ko defee tamit wàllu social dafa yaatu ab dund a ngi ci am paj a ngi te am na ci ñoo xam ne si seenum paj la leen cee gàllankoor mooy ñàkk am dara te nit ñi nangootu ñoo dimbale kenn bu boobaa képp koo xam ne am nga problème di santé wala ko ngay wër ci mbedd mi di yalwaan wala ngay wër di dugg ci kër yi te la nga bëgg doo ko am kuréel googu boo fexee ba communiquer ak ñoom bu message bi jàllee ci moom dañ la mën a jël en ci wàllu social faj la ba sa wér-gi-yaram dellusiwaat ci yow boo demee ba jaaxle ci loo lekk ak loo naan mën naa demee noonu waaye social bi nga xam ne sëñ Muntaxa mi da koy def ci réew mi bu boobaa yéen da ngeen ci mën a taxaw taxawaay booba comme ñi nga xam ne dañuy ay bokki jullit te yenn saa yi accident dab leen muy seenub dëkk jekki-jekki na France wala gàllankoor inondation yi duggal leen wala lu mel ne jàngoro ji fi génn muy corona bi tënk leen bu mënuñoo dem fen gis ngeen ne sëñ Muntaxa génnee na ci millions yu bari jox leen ko waaye non seulement mu jox ko ñooñu waaye jël na état bi yëpp dimbali ko ci réew mi bu boobaa yëpp seen xaalis boobu da leen mën a permettre ba social boobu sëñ Muntaxa doon dox yéen da ngeen ko ci mën a aw nga xam ne lépp loo xam si xewate na ci réew mi rek seen mbir lay doon su ngeen si génnee la ngeen di génnee jox ko rek mooy sëñ Muntaxa ko génnee joxe ko defee loolu bokk na ci jaamu yàlla gi te dana mën a rafetal jaamu yàlla te loolu mooy ihsaan bi nga xam ne moo dox suñu diggante ak lislaam ndax islaam dañ ne imaan waaye luñ ca teg islaam teg ci ihsaan imaan bi mooy nga gëm yàlla gëm bisu pénc gëm la ci aju lépp islaam bi nag mooy ngay nangoo di jaamu yàlla jullee gi ci aju yépp insaan bi nag mooy rafetal gi nga xam ne mooy comme lii ma la wax dimbalante ci lépp lu yàlla wax ne na ngeen ci dimbalante ci seen biir comme loolu moo waxoon nag wa taxawuna alal birri wa taqwa wala taxawuna alal ismi wal udwan dimbalante ci yu nag mooy lii ma wax rek fekk ku mbir ku ko aajowoo nga jàppale ko dimbali ko ba xeetale ko bu boobaa it ponk bi nga xam ne mooy ponk aj màkk nga xam ne sëñ Tuubaa waxoon na ne demoon na ba am yéenay aji màkk waaye gàllankoor a ko dikkaloon diggam ak noon yi ndax mësul ñaan noon mbindeef sax wax wala mu koy tinu ci dara loola nag bi mu sóoboo ci liggéey bi ba ñaan ko suñ borom ba siñe ko amatul droit ne damaa bëgg génn ci bunt bi di ko jaare ci mbindeef ci loo xam ne nekk nii doonul ndigalal yàlla loola nag gàllankoor ko ca màkk ga ndax wax nañ ne 1895 la bëggoon a aji ji màkk waaye nag loola tax liggéey bi mu doon loo bi mu doon waaj a ci jamono jooju lañ ko teg moo tax mu bind ne esbu bi ne ay nii lam taraahu a munawwara maanaam day metti na ma lool ma dem ba dund ba faatu sama bët bi tegul ci barab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag comme liggéey li yonent bi la doon defit loola moom xay na lu mu ko métti métti it comme sallallahu alayhi wa sallam lu liggéey la loola benn la ci moom waaye nag am na ñu ko wuutu ci aj googu di ko ko ajali at mu jot nga gis xalifa général de murit day génne lu bari ci xaalis tànn ay nit ñu ajali ko biir njaboot gi sax dañ koy def sëñ Maamoor sëñ Murtada mii da koy def ak ñenn ñi nga xam ne it ci njaboot gi lañ bokk da ngay dégg ñu ci bare bari ñun dañuy ajali te ci yoon wi lañ bokk aj googu bu boobaa yit xalli sëñ tubaa jooju mën nañ ko mottali ci yéenam jooju mu naan yasuubu ni mawti wa ayni lam taraahu madinatul munawara dana ma tiis ma dund ba dee sama bët bi tegu ci barabu yonent bi sallallahu alayhi bu boobaa nag at mu jot am ngeen quota boo xam ne moom ngeen di tànn ci yoon wi nga xam ne quota boobu at mu jot yéen a koy tàllal seen bopp ñu ne Tuubaa ci kanam kat ren dana yóbbu nangami pèlerin yoo xam ne si ci alal li sëñ Touba lay dem nga xam ne dañuy mottali ci yéene sëñ Touba nga xam ne moom la bëggoon a def ca màkkatal mu kanam su ko defee loolu dafay am solo am solo goo xam ne danañ dem ba jëmmi jamono xanaa génération bi mujj a waaye ñi war a dem màkk ñi ñëpp te yàlla may leen kàttan gi ak wér gi Euh, bu boobaa da ngeen leen mën a jël ñoom ñëpp yóbbu màkka bu boobaa it yées yéene sëñ tubaa ji ca loolee mu doon bëgg kon yéene ko koy mottali kon mel na ne li sëñ tubaa doon yéene ci dëkk bi lépp yéen defal ngeen ko te ca biir def def boobee ku bokk ca loola rek yaa ngi ci biir pay googee te loolu boo doon jeex fii ba a Munawara ci ak pay yi doo gis fay gu gën a kawe googu fay kon nag soññee bi tey ci tëjte gi mooy ponki lislaam yooyu su ko defee nag loola bu amee li nga xam ne mooy wàllu jaamu yàlla gi nga xam ne waxtu jot jullit yi dañuy yittewoo seen mbirum suñu boroom ji diine ji te bala ngaa mën a jaamu yàlla da ngay xam léegi bu boobaa tamit wàllum daara yi nga xam ne sëñ bi bi mu gën a jamono ci la gën a jamono maamam yépp ci loolu lañ nekkoon ba waajuram bi mu jamonoonteel gis ngeen ne ab mufti bu mag la woon ab xaadi nekk koo xam ne mboolem faculté xam-xam mu nit di wuti ba mu jaral sol di wuti saw daal boo dikkee da nga ko fekk ci daaram sëñ bi daa ko ci jàppale yàlla may ko ci lu am solo daara yooyu it képp koo xam ne yaa ngi ci Tuubaa gii lott daara te am yéene jàngale mën nañoo mën ngaa ñëw yëglu ci ñoom ñu ñëw xool yabal fa ñoo xam yi ñoo koy saytu ba gis daara ja la nga xam ne jàpp nañ ne moo ca yell ñu tabax ko ci àll Sëriñ Tuubaa joojee su ko defee ñooñu it toog fa di jàngale alxuraan ci anam bu am solo boo xam ne nit ki dana jàng te duutu am yenn coono yi su ko dee defee nag wàllu rabetaillement ba war ca këram lekk gaag naan gaag fayum kuraa gi yépp ñoom ñii lañ koy jàppale ci àll sëñ Tuubaa jooju ba alxuraan joojee nga xam ne moo tax ñuy def loolu nga xam ne alxuraan jooju njëkk sëñ tubaa di ñëw ñi ko jàngoon kenn ku ne sa roq nga toogoon waaye ñi ko jàngoon am na ñu ko daan fawe am ci ñu ci daan eh, falal nit ay buur di jaare ko ci rey nit ba sëñ Tuubaa ñëw yëkkati ko ba defal ko daaray kaamil da ngeen ko mën a wut ci loolu te alxuraan jooju it ñi ko doon jàng bu njëkk tumuraanke gañ tumuraanke woon tax ñiy lakk seeni daara ak di leen jàpp di tëj ca jamonoy feder ba loole lépp da ko mën a récupéré waat ngir doon na gi yàlla doon la sëñ Tuubaa alxuraan ba mu ne malaka ni maaliku euh, xuma nu mu ko waxee tax malaka ni la malaka ni alxuraan tam lii kat yadduum boobee ma wax suñu borom euh, moom loo na ma alxuraan maanaam doon na loo na ma ko doon na ko gi mu ko doon na yéen a koy wuta ca loola bu ngeen gis daara ja tumuranke ci wàllu lam war a jëfandikoo yéen la war yéen ay dem taxawu daara ja ba daara ja na ci wàllu bâtiment wàllu ay néeg wàllu ay douche wàllu ndox wàllu courant ba daara jooja tegu ci aw yoon ba nit ña mën a jàngale jàngale mu am solo kasaalika njàngum xam-xam meet ñi koy jàngale dañ leen di defaral barab yu méngoo ak li nga xamante ni si mooy fa ñuy jàngale ci wàllu set ak wàllu lépp lu ci aju ko defee kon xam-xam bi ak alxuraan ji danañ mën a ànd te loolu buñ ko defee ci nit ki mu njëkk ci rek soobi suñ borom nit ki dina nekk ab jullit entier boo xam ne non seulement mu nekk jullit entier waaye day amaale éducation bi nga xam ne moom ci culture bi mu nekk da koy ànd ak moom su ko defee bu ëllëgee dara du ko mën a bët dara du ko mën a rut te du mën a sànq bu ëllëgee nag bu ñu demee bitim réew ci ñi nga xam ne ñooy bokki jullit yi danañ mën a présenter seen bopp ci ludul ñiy wut interprétation te loolu gis ngeen sañ sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma wax nañ ne biir bi muy wër addina bi di dox réew moom dem li làkk yi bari bari bari làkk wu dégg na ko bu demee kenn du ko interpréter lu ñu ko laaj mu tont lu mu leen bëgg a laaj dina leen ko laaj bañ naw ko ci kon li marqué ci addina loolu daara moo ko ko may boobaa it kuy tuddoo ab murit da fexe ba mu ràññi ko ci kaw addina ba jongante alxuraan ji danañ dem ba ah, Touba day bokk ci dëkk yi koy organisé ngir li sëñ Touba wax ci bayit woowu malaka dina xuraan tam leen kat yeddoom boobu nga xam ne nit dana ko dégg ab dënnam rëcc bu boobaa bu dikkee Touba moom duutu ko nattable moom daara yee koy wan ne ko lii kat moom lu wér la sëñ bi ñaan na ko te suñ borom jox na ko loola nag kon waa Touba ci kanam da ngeen ko mën a e, jàppale ci alxuraan yi nga xam ne mooy tax nga mën a jaamu yàlla mooy tax nga mën a xam yàlla su ko defee yooyu yépp nag bu paree sëñ Murtada Mbàkke dafa am nu mu baaxoo daan def ci liggéey bi mu daan liggéey di dem bitim réew ay di jëli ay bagages yi conteneur di ko dugal di ñëw di jaayaat muy ay pièces détachées ak di samp ay puur ak di wut auto transport yi di ci dawal lim ci daan gañee épargne ko woon di denc ñu naan sëñ Murtada sëñ Murtada milliardaire la waaye dafa daan dooleel daalay alxuraan yi ñuy jàngale di dooleel ilimaan yi di dooleel néew ji doole yi moo tax léegi ñenn ñu ne dafa wutoon lu ñu leen war a fay par weer ndax koy fay moom da koy employé moom nag ci diine lay liggéey kon ku ciy liggéey ci diine moom moo lay employé loola moom ñi nekk ci moom jege ko xam nañ ko te loolee it sëñ Maamoor mii ko fi wutu di xalifaam yàlla na fi yàgg tiir moom it ma ca loola di ko ci dimbali bu baax a baax a baax kon daal mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen andiloon ñi ngi ñaan yàlla fekkee màggalu déwén te kenn bañ koo wóote su ko defee nag xëy na suñ borom mën naa dàgg sunum xel dolliwaat ci sunu xol ak cofeel dolliwaat ci sunum xel luñ gën a mën a taatan ba gën koo mën a dolli ji lii nga xam ne moom lañ taatanoon ñi ngi ñaan nag képp ku ñuy déglu yàlla na la suñ borom dolli fan bu gudd ak wér gi yaram ñi ñu mënta déglu amuñu jumtukaay déglu ñu it ci jullit yi lañ bokk tam al muslimu aqul muslim ñoo ngi ñaanal daal jullit yépp yërmande yàlla ndimbalal yàlla yàlla rek mooy mën a dimbali dimbali ñu ba suñu noon bañ ñoo jekku ci dara ba suñu jaamu yàlla mën a jub ñii fi taxaw nar a nasaxal lislaam yàlla na leen yàlla nasaxal comme na nga xamante ne sii noonu la ñu njëkkoon doon bëgg nasaxal lislaam ci jamono yonent bi ba xare ya tàkk nañ nasaxe yàlla na ko ñii fi ñii leen fi wutu te tuddee seen bopp jullit ba pare di xeex ci seen biir di xeex lislaam yàlla na leen yàlla nasaxal ñu am deegu deegu gaaw feebar bu yàgg bu dul tul wér yàlla na leen ko yàlla teg buñ teggiwul seen tànk ci lii ñu xam ne dañuy gor islaam ak jàpp kilifa yi diine di leen di leen rey ak di leen tëj ngir rek bëgg lu neex ñoo xam nekk nii duñ ay jullit waaye lislaam lañ bañ ñay def loola daal seen ak toraxtaange yàlla na ko ñu bari fekk te yàlla na leen feebar bu dul wér dal yàlla nañ dee ci deegu ñaaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci coono wet yàlla na leen yàlla gën a sàmm gën leen a aar gën leen a mën a moy muñ ah, kon ñu ngi taxaw foofu di jox dig dig daje insha beneen yoon yàlla nañ ko fekkee jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu والجن والشيطان وعن فرار الخلق ورثايا والجن والشيطان والبرايا وامرني بالتقى ونور وسود والورع في دوري ومسكن المسكن الخبران ورد والإرفان والإلوان ودار إخلاص وصدق وورى ودار سنة ومنجن من بداية waajalu daaba maskana taalumi wa mawdi al fikrati